mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte bu yaatu euh, dikk ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy defee àllarba bu jot ci waxtu bi nag ñu ànd ak yéen ci émission boo xam ne li ko tax a jog mooy waxtaanee tolluwaayu réew mi euh, ci wàll yëpp nag wax réew mi di nga wax tolluwaayam ci wàllu politique. Euh, di nga ko wax ci wàll yëpp yi nga xam ni réew mi làmboo na ko loolu mooy li yëkkati émission bi di faram fàcce télévision Futur Média euh, di leen ko amal nag àllarba bu jot ci waxtu bi te mu nekk une émission boo xam ni itam en direct la euh, tey nag ñu am ci gan goo xam ni moom mooy maire bu Thiès Babacar docteur Babacar Diop lay wuyo moom docteur Babacar Diop itam moom moo jiite FDS lay Guelwaar muy maanaam. langue politique boo xam ni bu bu taxaw la euh, bokk ci euh, mën nañu wax bokk ci coalition bi nga xam ni moom mooy Yewwi Askan Wi moom la ñu recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñi ngi am mbégte bu yaatu docteur Babacar Diop di la nuyu. pap maa ngi lay nuyu. Mhm. di am mbégte bu yaatu buy si la. Mhm. waaye muy nuyu suñu mbokk waa Sénégal yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. Euh, di wax euh, mbégte ci mën na seqaat jataay bu mel nii mm-hmm. ndax euh, géej naa ko def kon sant sama borom bi mu ñu mayee fekkee tal ba mën a seq jataay bu mel nii ngir waxtaan ak waa Sénégal waaye nga may ma ma beral nuyoo sama waa dëkk waa Thiès kaay mm-hmm. waa Thiès mu mel ni biñ la falee ak léegi mu ngi toll ci juróom ñetti weer Euh, mu yemoo itam ak ñu génn ci gàmm xëy na mu nekk gàmm boo xam ni présider nga ko en tant que maire bu euh, région bu Thiès ville de Thiès euh, mën nañu wax ban yëg-yëg nga am ci loolu gàmm gi nga xam ne génn nañ ci itam ñuy profité lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci yàlla nangul ñu ko ci gàmm gi nga xam ni amal nañ ko daanaka fépp ci biir réew mi rawatina fële nga xam ni moom mooy ci Tivaouane en tant que maire bu Thiès ku ne xam na ni Thiès moo ëmb Tivaouane mu nekk nag sa sa sa bu njëkk daanaka en tant que maire euh, ban gis-gis nga ci am ak ban taxawaay nga ci am itam foofu ca Tivaouane. Euh, am ci mbégte bu rëy. Euh, ndax cees day dëkku diine. kilifa tarixa yëpp ñu ngi cees ci fànn bu ne. mairie de ville taxawu ci. yaakaar naa ni këru diine yi gën a rëy cees yëpp. ah maire de la ville teew na fa eh, ci préparation yi aussi eh, nekkoon nañ ci seen wet eh, ci wàllu fànn bu ne jàppale leen ko ñi préparé ko dëkk yi wër cees aussi muy Tiwaawan muy ba yëpp dem nañ seeti suñu kilifa diine yi nekk foofu yëpp Euh, chaque jour soo ci demee rek da ngay gis liggéeyu mag ñi. da ko def ak délégation wala da nga def da nga def ay délégation ñu dem wala da ko def personnellement déplacement yooyu. Euh, déplacement yi ñu def yëpp dañu def de manière officielle. Mhm. Euh, délégation de la ville de Thiès. Mhm. yoo xam ni man maa ko conduire. Mhm. ci gàmmu gi conduire naa je pense plus de quinze délégations yoo xam ni. man maa ko conduire ci biir Thiès ak li wër Thiès. ngir indi nuyoo Thiès ndaxte soo xoolee gàmmu bi mel ni Tivaouane dafay am ci région Thiès. Mhm. région Thiès euh, Thiès mooy capital bi. Mhm. kon maire de Thiès ak mairie de Thiès aussi dëkk yooyu dafa am lu ñuy xaar ci Thiès. Mhm. moo tax dafay normal euh, bureau municipal bu Thiès. dafay normal conseil municipal bi Thiès dafay normal le maire de la ville de Thiès de manière officielle boo xamante ni du affaire parti politique teew Tiwaawan Mm-hmm. Euh, ci suñu mbokk Moustarchidine yi waaye teew ci Tiwaawan ci xalifa général bi waaye teew Cenaba waaye teew kër maam El bi nga xam ne kii famille religieuse bu mag la mhm. teew ci Baye Fall yi teew ci suñu mbokku tijaan yi teew jàkkatu couleur euh, donc teew ci xalif général des Baye Fall bi nga mhm. xam ni Thiès lay demee defee gàmmo teew ci Serigne Khadim Lo Gaydal plus de quinzaine de délégation yoo xam ni man mhm. conduire naa ko ci ci gàmmu gi loolu lépp da ngay seetlu euh, ni diine dafa am solo ci suñu dëkk d'accord mais dinañ am ay doléance ñoom Euh, kilifa diine yi rawatina ñi nga xam ñoo nekk ci euh, euh, ci région bi. parce que ci moment bi dinañ profité tàllal la li nga xam ne moom mooy seen ay ay bëgg-bëgg. je je dois dire yëg lañ gën a soxla. waaw yëg ku leen faale ku xam ni ki dëkk bi la ñu bokk la nga ama ko si néew nga ñëw bokk ak ñoom. yëg boobu dañ ko amuloon woon dañ ko amul woon wala. ah way léeg nga dem ci kilifa diine wala imaam. mu ni la ba ma dalee gàmm ba léegi. maire baa ngi fi soog ñëw. maa ngi doog a gis maire de la ville de Thiès déplacé wu ñëw nuyu si ma. Mhm. nga seeti imam mu ni la maa ngi gis doog a gis ci sama jàkka ji maire de la ville de Thiès déplacé wu ñëw ca yooyu li ma ci jàngat mooy bëri na loo xam ne Sénégal ay naxe la gis nga avec peu de moyens. Mhm. yu efficient nga dugal ko fi nga ko war a dugal di nga mën a def lu bëree bëri man yàlla dimbali nañu. def nañ gàmm yi bëri nañ liñ ci mobiliser ci xaalis bëriwul lool mais dugal nañ ko fañ ko war a dugal. Mhm. te jàpp naa ni ci xali ci ci ci kalifa euh, kër diine yi ñu demoon bu ci nekk rek. Mhm. gis na taxawaayu maire Thiès maanaam ñu mobiliser FERA mobiliser UCG. Mhm. nettoyer leen euh, ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu set euh, liñ leen mën a jàppale ñu jàppale leen ko. donc yeneen yi aussi li ëpp solo mooy maire bi daal di teew ci seen ci seen wet ñëw indi leen message yu Thiès yëpp d'accord alors Babacar peu de moyens boobu moo taxoon nga nga waxoon ni da nga nga récuser maanaam oto bu bu xaw a bakkane wala oto bu xaw a baax nga ni woon daal ak Thiès moyens yi mu am jarul ngay am yenn oto yi euh, oto ñëpp bëgg nañ ko mhm. moyen de travail la mais condition yi ma fekk Thiès Pape Thiès la deuxième ville du pays mhm. capitale du rail mhm. Thiès waaye ak seen fierté mhm. eh, nga ñëw une ville comme Thiès peine à mobiliser huit cent millions de recettes ay bor plus de sept cent millions contexte bi ma fekk Thiès nga xam ni ville la boo xamante ne à part payer des salaires la ville est trop trop trop faible ma ñëw di def diagnostic la ma fa dénoncé yëpp bu ma waa Thiès déggoon ni jënd naa oto million millions 45 millions nit ñi seen xel dina teey moo tax ma ni conditions yi ma fekk dëkk bi jafe-jafe yi ma fekk dëkk bi au plan économique au plan infrastructure faiblesse des infrastructures il y a absolument rien en tant qu'institution municipale rus na di jënd oto ci alalu Thiès bi ñu demee conseil municipal am na ñoo xamante ni ci ay conseil opposition lañ sa veut opposition locale mooy waa Benno Bokk Yaakaar mhm. dañu dëkku xaaju ni le maire de la ville c'est à un statut dafa war am oto waaye yeeyu wax ko mais euh, ci jafe-jafe yi ma fekk Thiès ba fi mu nekk nii oto boobu jënduloo ko am loo oto non ba fii mu toll nii jënduma ko sama chauffeur bi <laughs> mi ngi wax ni léeg-léeg sama oto bi bu de dañ naan clando Thiès <laughs> clando Thiès mi ngi noonu quoi mais affaire yi du du oto bu rafet du oto bu li ëpp solo dëgg-dëgg mais être au service. des Thiessois alors Babacar yaakaar loo ni danga nga juum. parce que juum mënta passé ku ne xam ne ni oto luxe tax koo jóg nécessité la mënuloo nekk maire u Thiès war a dugg ci ruq-ruqaat yi war a dugg ci àll bi war a dugg feneen ak feneen mais di yor oto boo xam ni oto bu ñuy wax clando la jàppaloo ni da nga juum ci loolu parce que yow yaa jël oto def ko def ko luxe. xalaatuloo ni oto bi ak lu mu mën a chair dafa war a nekk oto bu baax oto bu dëgër oto boo xam ne maire bi mën na ko liggéeyee. Pape wax nga dëgg euh, oto du luxe euh, war naa ko am bu baax oto bu liggéey te jàpp naa ni maa ngi ci damay liggéey nag je suis universitaire dem naa ci suma banque euh, fan yi ba am na yuñ def yoo xam ni jàpp naa ni mën naa am un prêt parce que l'université nag moom a ngi fay ba léegi damay jàngale E jàpp naa ni dinaa mën a jënd sama alalu bopp li ma université di fay ma def ci benn prêt bancaire sur cinq ans boo xam ni dinaa am oto bu baax ñi ngi ci non mais Babacar Babacar vraiment li ngay wax ni mën ko comprendre quoi xam nga nag aussi euh, nga baal ma de mais li ngay wax nii dafa walaa kaana parce que walaa kaana mënul passé nga baal ma maa ngi jégalu bu baax a baax parce que mënuloo jiite nekk maire bu toll ni maireu Thiès ngay taxaw naan université universitaire la suma banque dina ma lebal xaalis pour ma jënd oto mais est-ce que yaakaar nga loolu lu lu lu c'est-à-dire da nga da da nga ko teg ci bëgg a wane ni noo man dama bëgguma laal alalu Cees wala est-ce que loolu loolu luñ mën a dégg la loolu nga expliquer ko. luñ mën a dégg la Pape. waaw oto bi bu bees xam nga mairie du jënd oto bu <laughs> oto bu deuxième seconde main lu mu néew new dina am ay quarante Euh, ou bien plus. mën na ko dem. waaw aujourd'hui lancé na un marché d'éclairage public à Thiès de cinquante millions am na ay avenue yu ñu taal ay làmp yoo xam depuis plus de dix ans tàkkul pap loolu sécurité la loolu moo ëppal njëriñ Thiès su ma jëndoon oto boobu ak def def arbitrage def ko ci éclairage public lan moo gën a yanu maanaa pap donc du affaire walaakaana xam nga il faut que. nit ñi dindi complexe gis nga li daan am bu njëkk maire. waaw mais dindi complexe loolu si c'est c'est relatif. Ah oui c'est relatif xam nga lu may wax loolu. waaw man maire laa bu yeewoo dans un quartier populaire. waaw j'habite à ce quartier Sampaté fa ma dëkkoon avant may nekk maire fa laay yeewoo tey ji dans ce quartier populaire saa su may xëy damay dañ dañ may gis pourtant mënoon naa ni nekk naa maire rek. dem grand standing bi ma nekkee maire proposé nañ ma ay ay ay villa grand standing au niveau de je préfère me réveiller encore yeewu quartier Sampaate yeewu ci quartier populaire jafe-jafe yooyu di ko jànkonteel bis bu ne gis nga maire pap maire yi daan am bu njëkk ay oto buy génn gàngoor topp la monsieur le maire a ngi ñëw ànd ak say géwal non loolu du sama conception du pouvoir pour moi Euh, le pouvoir c'est être au service d'accord du peuple askan wi mhm. bariwul mhm. d'accord alors est-ce que mën nga fi def lu fi Talla la deful moom mi nga xam ni bureau sax amu ko woon gis nañ ko ci ay image mu toog ci suuf gis nañ ko daanaka sax buy dem màggal c'est vrai que loolu euh, lu muy faral di def la mais est-ce que jàpp nga ni parce que li ñu li ma jaaxal mooy ni nga décrire euh, ni nga décrire par exemple ni nga finance yi nga xam ni fekk nga ko cees mais loolu dafay wane ni yàqate amoon na fa jalgati amoon na fa te ni ñu comprendre ki nga xam ni moom moo la fa jiitu woon mais li ñu wax sax mooy kër gu mu dëkk à sax amu ko c'est-à-dire nan nga mën a expliquer loolu. Pape man duma personnaliser le débat muy Talla Sylla ma fa ne newoon avant moom ba Diattara su may mag lañ mais li ma mën a wax mooy l'institution municipale bi ma hérité fekk ko am naa bu lu bëri lu ma métti. li ma gën a metti mooy nan lañ mën a seetaane Thiès ba mu ñëw ci état bi nga xam ne ci laa fekk mairie maire boo xamante ni amul dara dara dara dara dara pap ci infrastructure dara tey jii su benn quartier cité Senghor wala cité Balabé ñàkkoon ndox maire bi bu ñaaniwul ndox SDE amul sax citerne boo xamante ni mën na intervenir la ville cest à pendant longtemps ñu dugg dans le clientélisme dans la politique politicienne dans la mauvaise gouvernance manque de vision seetaan la ville ba ville bi nekk ci situation boo xam ne et ça n'aime personne les choses les plus élémentaires da ngay dugg ci xola nga dugg ci yéeg ci kaw tali bi tableau de signalisation amul traçage de route amul xale yi jàngi sax bu ñu bëggee traverser amul sax dara luy indi luy luy luy jàppale automobiliste et c'est des choses yu simple Pape yoo xamante ni est am nañ fu ñu mën a jëlee ressources yi fan lañ ko mën a tiiree ci Thiès. Euh, oui est-ce am nañ ko. oui Pape jàpp naa ni alal doyul. waaw bariwul mais li fa nekk ku néew ci alal suñ ko dugaloon ci priorité yi ci jafe-jafe askan wi jàpp naa ni. fan lañ ko def ci lan lañ ko def. bon li nga xamante ni fekk naa ko. def naa diagnostic bi diagnostic bi ma def c'est pas contre Talla Sylla dama retrouver dañu ma jox ab mairie ab institution. te est-ce que habilité nga aussi pour def diagnostic boobu. ah oui avec mes services ak ñi ma ci mën a jàppale du audit. non mais. du audit non ni ni nga ko waxee soriwul audit. non du audit xam nga lan leen état des lieux. de la audit mais vilipande la. non man aw ma jot vilipande. si si damay wax vilipande mënul paase nga ni par exemple euh, banque bi nangam lañ ko ko joxe telle euh, telle structure nangam lañ ko ko joxe commencé expliquer sa à ni nga ko décrire loolu aussi dul vilipande lan la doon Babacar. coow li muy bari bari li docteur Babacar Diop maire de la ville Thiès wax kenn du ko weddi looloo ci am solo kenn léeg nga gis benn waaye mu nekk ci télé. wala mu dem ci réseau sociaux yi attaqué docteur Babacar Diop ba sonn mais li ma wax les faits nga xam ni ma wax naa ko ci sama conférence de presse soo gisee kenn ku mën a démentir faits yi ma wax rek indil ma ko vilipendé wu ma kenn xam nga lu ma bëgg Cees waaye xam ñoom lan lañ moom ci seen alal tey jii au moins Cees xam nañ ñoom luñ moom ak luñ moomul Cees xamuñu ko woon Cees waaye xam nañ ni fi Sonatel nekk ndekete ñoom ñoo ko moom ci dañ leen ko doon Cees xam nañ ni fi CBAO nekk ndekete ñoom ñoo ko moom Cees xam nañ ni fi AMG ne ndekete ñoom ñoo ko moom loolu mooy le débat la transparence alors léegi lan nga si def bi nga ñëwee fekk fa loolu lan nga def waaw xam nga par exemple huit mois ngi nii am na loo fa fekk nee nga baaxul lan nga def loo xam ne mën nañ ci teg loxo euh, li ma def lu ñu mën a teg loxo mooy d'abord Cees waaye ñoom xam nañ seen alal beneen bi mooy Sonatel. mais nag xam seen alal ak jot ci seen alal est-ce que. waay déglu ma bokkul déglu rek. Sonatel. Mhm. accepté nañu renégociation du contrat. suba à 10 am naa réunion pour commencer renégociation du contrat avec Sonatel. lu ci jukki suba à 10 heures Sonatel dinañ ñëw à la ville de Thiès. Mhm. ñu ngi may dégg Thiès waaye yëpp dinañ commencer renégociation du contrat. ok contrat bi lan la woon pour ñi nga xam comprendre ñu woon. lan mooy contrat Sonatel dañ leen a 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés lañ leen loué Sonatel. ñuy loué leen ko 6000 francs le mètre carré par an cela signifie 500 francs le carré par mois 1000 mètres carrés Sonatel di fay Thiès 6 millions l'année j'ai dit ça c'est inacceptable. Mhm. Sonatel nangu nañ ko bi ma ja bi jàkkaarloo ak ñoom Thiès waa yëpp xam nañ loolu du dëgg du yoon. waxtaan naa ak njekk ak teraanga ci waa Sonatel waa Sonatel d'accord nañ non seulement renégocier contrat bi mais Sonatel d'accord nañ au travers la RSE gën a teew biir Thiès gën a jàppale ndawu Thiès gën a jàppale doomu Thiès. Mm-hmm. CBAO daje naa ak ñoom wax naa leen ko dañ leen a luyee huit cent mètres carrés six mille francs le mètre carré par an cinq cent francs le mètre carré par mois wax naa leen ça c'est inacceptable. parce que jaaykatu jën bi boo ko ko luyee woon sax ki ki kiy jaay jën sax mu fay lu ëpp lool 4800 francs le mètre le 4 millions 800 4 millions 800 francs par année ci ñu luyee la centre ville 800 mètres carrés CBAO daje na ak ñoom d' accord nañ renégocier contrat mm-hmm. non seulement d' accord nañ renégocier contrat mais d' accord nañ yokk jëflante ak waa dimbali waa loolu laa wax aussi toutes les grandes entreprises yi nga xamante ni dañu nekk Thiès am na ñoo xam ñi ngi ci carrière yi wër cees chaque jour seeni camion di traverser Thiès di yàq suñuy tali ci amuluñ benn njariñ Thiès entreprise yooyu mais war nañ indi seen participation ci dundunu Thiès jàppale ndawu Thiès jàppale jigéenu cees jàppale étudiant Thiès. Mhm. mais entreprise yooyu dañu mhm. war a amal njariñu askanu Thiès donc loolu lu concret la baneen la lu concret mhm. Pape j'ai lancé un marché de cinquante millions éclairage public tal naa ay lampes yoo xamante ni depuis dix ans tàkkuñu Pape ci wàllu bourse Thiès mosul am bureau des bourses aujourd'hui j'ai créé benn bureau de bourses tey jii defoon nañ une réunion pour signer ay convention avec des écoles de Thiès l'année prochaine j'engage cent millions jox ko ay bourses doomu Thiès pour ñu ñu mën nañ leen a fayal seen jàng doomu Cees yi bëgg a jàng parents yi bëgg seen doom jàng te amuñu ay moye ñu mën leen a jox ay bourse ñu daal di ñu daal di. te loolu amu foon Cees. Ah, laajal waa Cees boo. non mais man du ma laaj waa Cees yow lay laaj. <laughs> bien sûr que amu fa woon bureau de bourses moo ngi dëkk am Cees mairie bu Cees jox ay bourse étudiants Cees pour ñu mën a jàng cent millions. d'accord. cent millions ok alors euh, xëy na xëy na li nga wax xel mën na ko nangu donte déggaguñu beneen beneen wàll bi muy côté bi nga xam ni mooy entreprise yooyu nga xam ni yaa ngi yaa ngi négocier ak ñoom mais li nga xam ni xel mënu ko nangu mooy li xew université Iba Der Thiam par exemple euh, ay bërëb yoo xam ne ñi ngi fa muy ay ay bërëb yoo xam ni mi ngi fa nga ni non lii ville joxoon leen ko nga ni danga koy nangu. Pape maire de ville maire de Thiès yóbbuwuma ko sama bopp askanu Thiès ñoo ma fa yóbbu. du ma waxantu réew mi nag tu dëgg lu fi tumuranke la pap ma jox la document bu ma musta présenté nga am privilège jot le TF 6000 TF 6000 TH bi nekk quartier Randoulène def 12000 mètres carrés foofu la cinéma Amitié <clears throat> nekkoon ville de Thiès da ko jënd en 2002 waaw 150 millions la ko ville de Thiès xoolal signature yi Mm-hmm. mairie Thiès da ko jënd en 2002 150 millions la ko mairie Thiès jënd. Idrissa Seck Serigne Ahmadou Camara Mamadou Guèye waay. 150 millions muy le maire président commission de liquidation ak receveur des domaine ak le vendeur. Pape liiral. d'accord ah non lii xam nga xam nañ ni ville de Thiès moo ko jënd. waaw déglul ma ma yeggal.